ban euh, selaan bii nii nii fii nii. waaw maa maa ngi lay neefee. yaa yoon bi nii rek. waaw léegi ah. hectare bi yëpp. Ah, hectare bi yëpp dañ ko mën a doxo. 14000 ah, mètres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 da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te waaw grand frère ñu ngi ziar bu baax ñu ngi jégalu de wallaay nekk si àll bi rek foo nga làqatu quoi moo tax bon fii moom comme ni la ko waxee sànq rek ñu ngi nuyu ñëpp ah ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi Maroc quoi saa yi ñu ngi Nador. yaa ngi dégg mais fii daa bëri ay buntu quoi am na am na Tanger am na Nador am na Tétouan am na Sipca am na Finidak bon am na Las Palmas yëpp ay yoon la daal yaa ngi dégg mais daa bëri contrôle trop trop trop parce que clandestin moom c'est interdit quoi dañ koy tere yaa ngi dégg mais nag Sénégal doxul quoi Sénégal moo doxul moo tax il faut nga sacrifier reyante quoi moo tax waaw mais yombul daal xam nga am nay góor na nay jigéen xeet boo xalaat rek ci africain rek mu ngi fi quoi ba mu des européen ay ghanéens ay maliens ñëpp ngi fi daal ñëpp a ngi fi ay góor ay jigéen waaw mais nañu si bëri nag daal ñu si dee daal mu ëpp ñuy jàll quoi ñu si dee moom mu ëpp ñuy jàll quoi yaa ngi dégg am na barrière tamit quoi barrière mooy Kasiako quoi foofu moom grillage yi foofu 7 mètres la quoi 7 yaa ngi dégg mais daa bëri ay contrôle quoi parce que toujours gars yi dañ leen a dàq ji bu ñu leen jàppee dañ leen a refoulé maanaam wusda quoi wusda maanaam comme boo nekkoon dakaar di dem Tamba quoi bu ñu foofu la ñuy sànni quoi exemple bi. loolu laa ko mën a jëlee quoi ak soriwaay bi quoi yooyu yëpp ñu ngi ci naar dañoo bon naar moom mooy loolu baaxuñu quoi dañoo bon dañ lay door xam nga di la xam nga te fii daa sedd am petit quoi dafa sedd yaa ngi dégg dafa sedd quoi soo day taw rek day taw rek xam nga yooyu yëpp nga nekk ci ci bi ngay dëkk ci forêt bi ngay dëkk quoi doo dëkk ci kër parce que boo dëkkee ci kër ñoom ñaar dañ lay génnee quoi parce que bëgguñu ni ku dëkk ci kër quoi parce que xam na ñi boo la nekkee fii Espagne moo tax ngeen nekk fii quoi moo tax dañu leen tere loolu yombul daal grand frère léegi ñun daal ñun ñu àndaloon ñëpp parce que ñun cinq ñoo ci des ñeneen ñëpp dee nañ yaa ngi dégg ñeneen ñëpp bon ci géej gi nañ des ko yaa ngi dégg yàlla moo ko dogal nag mais métti na trop daal yaa ngi dégg léegi ñun daal social daal la ñuy ñaan quoi social ku ñu mun dimbale rek bu dimbale ñu bañ delluwaat Sénégal quoi waaw ba su ma nee jàpp daal nga jàpp si daal voilà ok merci wasalaam waaw grand frère loolu la daal bon noonu la fa demee daal métti na daal yaa ngi dégg fu nekk nii moom def nañ fii quatre quatre ans quatre ans ñu ngi fii yaa ngi dégg quatre ans ngi fii quoi yaa ngi dégg ba léegi demuñu Sénégal ba léegi quatre ans mu ngi fi ba léegi demuñu dugguñu Espagne demuñu Sénégal waaw te fii moom ñu cinq ñoo fi des cinq personnes ñoo fi des quoi ñeneen ñëpp ñu si bëri gaañu nañ si géej gi yaa ngi dégg doy na waa daal ku si mën dimbali daal nga dimbali ñu si rek te yàlla rek tax daal dañoo jaaxle quoi moo tax ñun ñu envoyé